ci langue politique bi waaye turam ñëw na lu baree bari ci discours Serigne Moustapha si ba ñuy màggal guddub yonent bi salallaahu alayhi wa sallam Aliou Mamadou Dia moom mooy candidat wu parti de l'unité et du rassemblement du PUR ci jongante njiitu réew yi di am février 2024 fonctionnaire international moom nag moo toogal jamono ji programme des Nations Unies pour le développement du PNUD de fële ca Cameroun ca ndorteelu avril 2023 bi mu toogalee PNUD 2023 euh, foofee nga xam ne nag mu ngi fa doon liggéey lu ci mel ni coordonnateur bu système des Nations Unies lu ëpp ñaari at a ngi nii ginnaaw bi mu amee lu jege fukki at ak juróom-ñett ci expérience ak xarañte E ci domaine développement durable ci Afrique ak waa PNUD ak yeneen organisme yu nekkee ci Nations Unies Aliou Mamadou Dia moom mooy dal di doxal programme bu yaatu bu PNUD bi nga xam ne mooy jàppale gouvernement camerounais ak Togo ci ñu taxawal seen plan ak stratégie de développement ñeel wàllu sukkali programme des nations unies boobee ñeel wàllu sukkali nekkul rek agence bi nga xamante ne mooy bu système des nations unies foofee nga xam ne Aliou Mamadou Dia fa la liggéeyee ndax ginnaaw gi am na expérience yu bari ci diggante yeneen agence yu ci mel ni UNOCHA UNDRR ak yeneen muy ay daluwaay yoo xam ne liggéey na fa ba noppi jiite fa ay programme jëm ci wàllu coordination ay action humanitaire wàññi lii di wàllu jéy fexe tamit ba sukkali am ci wàllu aalam gi moom nag mu ngi juddu ci atum 1972 ca Caajaay moom nag ñaari bëgg-bëgg rek la am ci àddinaam bokk na ca njàngam mu nekkoon ko xarañ bi mu nekkee xale amul benn jafe-jafe bi mu nekkee primaire ak collège ca ca naam sax dafa teel a ñàkk yaayam ginnaaw bi mu amee BFEM nag moom Aliou Mamadou Dia ci la dal di jóge ci guleet dëkkuwaayam boobee dal di dem ca Mbour ca lycée Demba Diop foofee nga xam ne fa la amee bac en l ñu dal di koy orienté département géographie bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu dal di fay am maitrise option hydrologie pur nag kon tànn nañu ab technocrate ngir mu dal di koy teewal ci élection présidentielle yi waaye candidat bi nga xam ne kenn xaaru ko woon ndax am na chance ci kanamu ñi nga xam ne yàgg na noo politique li ci kanam rawuli gët